je pense que c'est ce que être que c'est l'émotion, mais euh, vous comprenez que voilà, on vient de valider les 47 000 parrainages que nous avions déposés. Et profite pour vraiment remercier les Sénégalais de tous bords. Vous devez combler combien On de 16 000. Donc euh, ça, c'est euh, grâce aux Alors, moi, je dis que c'est un système informatique et comme tout système informatique, il y a des failles. Mais je pense que tous les candidats qui ont eu à faire un travail quand même assez sérieux sont soit euh, passés au premier tour ou au second tour. Donc, euh, je pense que nous, on a travaillé. Euh, si on a eu ce résultat-là, c'est parce qu'on a vraiment travaillé. On ne on s'est jamais permis de faire des raccourcis. On a travaillé, on n'a jamais euh, changé de cap. Et ça, depuis le début, c'est pourquoi on a réussi. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Madame Dien Penda. mandataire de la coalition Papa Djibril Fall, président. Et j'en profite également pour dire aux Sénégalais, on, est, on à cette élection-là et on va la gagner, Inch'Allah. C'était un défi, les parrainages Oui, c'était un défi parce que c'est un système de filtre. C'est un donc c'est forcément un défi. Mais c'est un défi qui ne nous a pas arrêtés, donc on l'a réussi, alhamdoulilah. Ah, Alors, ci wolof man maa ngi tudd madame Dieng Penda nekk euh, mandataire nationale de la coalition Papa Djibril Fall président alors aujourd'hui nous avons réussi nañu li nga xamante ni moom moo nekkoon second tour bi validé nañu 47 000 parrainages au niveau national donc loolu dinañ permettre tey jii ñu bokk ci élection yii di ñëw ñu waroon a mottali 13 donc ñu ci 13 000 ñu waroon a mottali ñu indi woon 22 000 validé ci 16 000 encore donc mu nekk liggéey boo xamante ni liggéey bu ama ama solo ñu mm-hmm. ciy remercier Sénégalais yëpp ci boor politique bu ñu mënti dox ndax gis nañ élan de bi nga xamante ni bi ñu lancé parrainage bi sénégalais yëpp fépp buñ ci mënti bokk ànd nañ ci système parrainage. moom système la système informatique la te ñi ko xam système informatique xam ne day am donc c' pas un système parfait donc on tend vers la perfection et je pense que élection yi di ñëw échéance électorale yi di ñëw dinañ ko jël en compte mais li ma mënta wax di ko xaar sénégalais yi allahu rabbi dinañ bokk ci élection yi te élection ci bokkee Papa Djibril Fall sera le prochain président la mandataire maanaam ne mandat bu micro bi nekk mandataire ki nga xam ni euh, moom moo di Pape Djibril